Terhapus 9h30 ci rajo Futur Média mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak euh, programme rajo Futur Média yegg si ak yéen ci seen émission xalas mu di suñu journalu fait divers lundi ba vendredi ñu ci ànd ak euh, Ndoye Bane inspecteur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar sama waa maa ngi lay béggee baax a baax. jërëjëf di ziar Passepartout ak euh, Aba xom fu mu ne sa booy bi fu mu ne. Hmm, non bu daa fanaan ca liggéey ba guddee guddee pare ma woon ca dakaar na door pluie. non non yow daal yow yaa ah, vraiment. man daal booy yu jaaxal na ma quoi dafa am ay avocat yu koy défendre. ñu lay bu fi ñëwoon fajar gi ay nelaw la fi nekk. du dem norme woon a ñëw nga ma noo baan sooxal rek. Ah, waaw ma soox ñëw. a mhm. ko woon def moo soox ñëw. oto ba tey yaakaar moo daw. waaw ah. moo tax yow mënoo toog. <laughs> waaw boo teggi moteur ba moom. kon nit ñëpp am jàmm yaakaaru daw. nit ñëpp am jàmm. amiin yaa ni jàmm jàmm am ci réew mi. amiin waay ñëpp am jàmm. poos yi am jàmm kër yi am jàmm. njaay kër yi. Hmm. na kër yi yàlla na kër am jàmm. léeg-léeg nit nettali ma histoire bu xew seen kër sama xel dem ci sa wax ji kër yi dañoo xumb. Sénégal kër yi dañuy mais kër xool biir kër yi amul jàmm. Hmm. mbedd mee am jàmm biti nii. Hmm. mais biir kër yi Sénégal biir kër yi amul jàmm. léeg ñu nettali la yoo xam ne day da nga naan lii ni nit mën a dëkkee. <laughs> Euh, passe partout. waaw Ndiaye. le terrible gosse la na nga def. Ah, bisimilah maa ngi lay ziar bu baax di la di la bëggee de. di la kontaane lu bari di nuyu ban di nuy auditeur yu xalaas yëpp di nuyu waa rfm point sn ñuy suivre en live sur Facebook ci www.rfm.sn maa ngi leen di du di nuyu waa Kaaru Fajar yëpp Ndiaye. waaw pass euh, euh, demal ci kii yi suñu gars muy partenaire ñoom waa Kër Serigne Touba Fallé Frère rek. ñoom euh, établissement waa Kër Serigne Touba Fallé nga xamante ne ji foo ko tuddee rek xel dafay dem ci gaamu vite fait bi ñu indi gaamu vite fait xam nga ba ñuy soog a ñëw dañoo indi woon vite fait cuuraayu bant. waa Sénégal bëgg ko fu mu mën di dem du doy. vite fait cuuraayu bant nga xamante ni da nga koy taal mu lay dàqal ay yoo bàyyi la xet gu neex ñu ne ah. loolu duñ ca yem mm-hmm. dañu ciy tekk beneen xeetu vite pomp la mm-hmm. au delà de yooyu faaw dañuy dàq mbuut yi faaw dañuy dàq weñ yi ñu indi benn pompe vite fait mm-hmm. yi nga xam ne tàngoor da leen di sonal ñuy bëgg di fanaan ci biti te yooyu du leen may jàmm te duñ am fu ñu lonk musikeer ñu indi leen crème vite da koy diw sa yaram rek tëdd nelaw. wala xam nga yéen ñii jaay dafa def publicité yi ay réew ngeen ko def quoi. waaw dégg nga gis benn publicité ci télé bi dégg la. Ah, ah, waaw waaw après ma noppi naa noppi naa noppi naa <laughs> damaa toog fi ma toog bii ree rek. Ah, baax na baax na baax na ban baax na ban. mën ciw mën caa. ba ban mën cararaan ban baax na. waaw doxalal maa ngi woon ci vite fait établissement waa Kër Serigne Touba Fall Fara indi ko fi. maa ngi ca ñoom kay. voilà am na cuuraay bant am na pompe am na am na am na crème. mais également air fa waaw RFA xam nga looy wër ci téléphone boo bëggee téléphone bu baax. Mhm. Mhm. bëgg téléphone boo xamante ne ji foo ko yor ñu naw la foo ko yor ñu fonk la. Mhm. dama leen di conseiller bi nga xamante ne ji moom mooy moom mooy moom mooy euh, nouveau model RFA mobile halo 4 Pro. 4 Pro mémoire 4 giga 64 euh, giga RAM 4 giga. Mhm. écran xam nga bokkut ak genre écran yu ndaw yi nga xam ne boo ko tiimee na nga def nii pour mën a gis. <laughs> Euh, batterie 4500 euh, milliampères. il m'attaque. 4 4 4 caméra lay doxe bi ma lay wax nii. Mhm. Eh, waaw Airfam mobile Allo 4 Pro bi 4 caméra lay doxee. mooy li ma yor nii waaw te dafa mhm. yomb. soixante seize soixante dix neuf mille lay jar maanaam quatre vingt yi sax yeggu fa. Hmm. te dañ la koy garanti waxuma la un an de treize mois. ak ak weer lu ca sikk dellool ca kala jaay mu defaral ko ba mu wax la beneen. est hmm. loolu ah, mooy ECFA euh, li mu ñu indil. Hmm. ay ca ñu doxal ci. Ndiaye balaa ñuy dem ci xalaas bi. waa service commercial dañu fay jox benn benn avis de disparition. Pape Fall mi ngi am vingt six ans. Euh, ñaar fukki at juróom benn. teint noir. mu mm-hmm. ngi dëkk Wakam extension. Mm-hmm. nee nag xel mi dafa xaw a dafa xaw a sutante. Mm-hmm. mi ngi réer depuis le 17 septembre 2020. waaw wolof rek la dégg nag. ku ko gis daal na contacter ay mbokkam ci 77. 858 05 75. baa ñu wala 77 103 74 21. wala 77 596 62 72. très bien baa ñu wala ci 150 17 17. 157 wala 33 849 16 40. 16 40 inspecteur. www.rfm.sn sama gars yaa nga fa de Racine Ba moom nee naa ma ana sama waa ji. Mhm. sa waa yaa ngi ne ana ñu ko bëgg. ñoo ngi nii ci 3w point. rfm point sn rfm point sn. wala maa maa njaay suñuy raak rek. Mhm. affaire yi day yéeg. day yéeg raag leen Ndiaye dafa am benn policier. <laughs> waaw bu nekk fii daaf. Uh-huh. ba xamante ne moom muy yóbbu kàddante yi yi ñu yóbbu mbuur commissariat yi mbuur. Uh-huh. jeudi passé mu yoroon lu toll ak cinq cent wala six cent kàddante ci benn mbuus. Uh-huh. fàtte ko Colobane. est-ce que noonu la demee. waaw loolu la ma wax. ji policier bi ca wax. mu ngi ko takk ci benn mbuus mbuusu cent franc yu blé yi. waaw hmm. mbaa doon cinq cent wala six cent. kàddante doon ma kaar la doon jël de. ah loolu daal la. ko wax. mais kon mosu d'identité yi réer na. d'identité yi réer na. léegi ku ko ku ku ko gis. ku ko gis nañu ko andil ñu fexe nañu fi jote baa nga yóbbu ko daaf. <laughs> waaw bu ci xalaat neexal nag. Ah? wala ngeen di ko njaay rek. wala ngeen ko njaay waaw. bu ci xalaat neexal nag ndax policiers yi dañoo nay. <laughs> ñoom nay ñu dañoo yorul. defaral waaye fi kenn yorul. non dañoo yorul. kenn yorul baan. waaw dañoo yorul dañoo war a yokk prime yi yokk seen salaire yi. Hmm. eh Macky Sall ngi dem ba Kër Massar ndox mu sedd sax bàyyilu bàyyiwu ko fa. ndox mu sedd. nay gi fépp la. <laughs> ndox mu sedd sax dégg naa bàyyilu ko waa Kër Massar. Eh, nay gi fépp la de. kon baax démb yaa ngi woon ci lu am solo xale bu jigéen boo xamante ne ji. moom mm. nee na dafa sonn. waaw soo yi moo doon wax ak moom. ci ci ci transition bi ngeen jigéen bëkk démb. waaw mooy papa ji nga xamante ni doom ji dafa tekki. bako ko ginnaaw uh-huh. kii nag moom nee na yaay moo yor bako ànd ak ay frère ak ay doomu baayam yóbbu ñëpp bàyyi ko fii moom muy souffrir ci kër maamam ci kër maamam. te li ko gën a métti man li ma ci gën a marqué nee na. portable am dafa yàqu sax. moo yaay ji pour yaay ji indil ko portable yaay ji bañ. Mhm. yaay ji yónnee xaalis ci booy bi ci kër gi. soxla portable mu yónnee xaalis xa doom ji jigéen kii di wax ne ko na dem retiré ko jox ko booy bi mu dem jëndi téléphone. maanaam ndaw si dafay suuf souffrir souffrir boo xam ne waxam ci sax. Mhm. mënoo cee kii ndax jooy yu bari. Mhm. nee na su lu woon doomam ji su xamoon amoon fum mu ko loxo yu mu ko teg. daa am waaw dafa amoon jëkkër divorcé. sëy na ñetti yoon te ñetti yoon yëpp sëyul ndax mbëggeel dafa sëy pour génn kër gi ndax li muy dund. mais ban looloo bari ci réew mi. Mm-hmm. soo doon recenser xale yu jigéen yi dugg ci sëy ngir échapper situation bu ñuy dund seen. kër biir kër dafa bari na de. situation daa bari. Hmm. na ñoo xam dañ lay topp yow looy xaar ci sëy sa morom yi am na ñu jëkkër. pression bi wala nga gis say rakki rakkaat di sëy yow nga toog. ñu lay xoole bët bi. Hmm. baa ngay dund ci seen kër loo xam ne. Hmm. danga nga naan lu ma gis rek dugg ci. Mhm, mhm. te dañoo fàtte ne euh, mbir mi moom. looy daw rek feneen foo dem fekk. gis nga njaay xam nga nit ñi la état bi ak nit ñi lan lañu war a bàyyi xel. Mm. ñi nga xam ni euh, seeni waajur dañoo gaañu. Mm-hmm. fekk ñoom ñu nekk ay tout tànk. Mm-hmm. loolu gu lu ko gën a metti amul man damay toog di xalaat loolu. Mm-hmm. nga gis jeune couple jeune couple am ay doom yi am cinquante ans dix ans seen doo seen papa gaañu. fii nii frères yi. Mhm. ak sœurs yi ñu kenn doomu kenn. Mhm. da ngay tukki sax bàyyi leen ak sa doom ñu yàq ko. Mhm. waxtuma la nga dee. yaa ngi imaginer métti boobu li seen yaay di dund. yaay dund yu garaaw la ñuy dund. su fekkee sax yaa jaa dee bàyyi fi baay bi. bàyyi bi ami moyen dina tane mais su bàyyi ba demee bàyyi fi yaay ji yaay ji amul ay moyen mu njaboot yàlla bu mu nekkoon ci location bailleur baa koy njëkk génne. mu beneen solution ne xaaral ma gis góor gu ma mën a yor ak sama njaboot. waaw dem euh, souffrance ba gën a yokk. mun ko mun ko lu ànd ki doomam ganaar rek laa ci bëgg la koy wax. waaw lu ànd ki doomam. moom ñëpp ko bëgg. <laughs> waaye nit a ki doomam. Mm. doom yoo jurul. Mm. gars yi góor ñi bëgguñu lool de. voilà léegi nag sa doom yi commencé di tàntaan tey ñu fanaan fee. Mm. ginnaaw subu ñu fanaan fee. yow nga bëgg loolu kii soo moytu sax mën na laa dugal ci naka su noonu. yàlla moo lay dimbali rek. doom yooyu rëcc. mais loolu état war na xool veuve yi donc ñi nga xam ne ay ay ay njirim lañu. doon ay xale. nu leen état mën a gunge ba ñu majeur. affaire bu méttee ngi noonu man damay toog di ci di ko xalaat xam nga kañ laa ko xalaat. bi pakoti gaañoo mu nekk jeune gaañu bàyyi fi njaboot. pakoti xamante woon nañ nii rek de loin mais dama da affaire bi ba léegi day revenir day ñëwut sama bopp man. jeune am ay doom génn ba bàyyi fi njaboot bàyyi fi sa jabat jàppul ci dara. su la nit ñi dimbaliwul doo dem fii Sénégal la te say frère te soo fi bàyyee dara soo moytuwul say frère a koy lekk ak say sœur saax saaxe commencé laa xas yóbbu la tribunal uh-huh. nangu sa kër gi sa service de kër bàyyi uh-huh. kii moo sonn déglu ko ma muñ ko muñ mënatuma koo muñ ndax dama xarit boo xamante ni lu ma naqari bu ma demee wax ko ko mu faj ko mais góor gu nekk góor nga mënuma tout le sama xiifee foofu laay dem sama yaay li mu def lu ma gën a choqué ndax yaa gën a di def lu ma choqué ma di si dëgg sama tànk yaa gën a di ma gën a leeg sama frère yi ma koy muy ah jënd na fi télé bi muy ñibbi dafa jël télé bi ko ci néegam ak yeneen ay yeneen yu may def su ma xeebu ne ma pour génn dëkk bi mu yóbbu ma ndax ma munal sama bopp mu ne ma moom indiee pour rien parce que ba mu waree dem def na sama maam moo ma sacrifié tey samay visa Meraklandı yollarımın simlerine. Era tanta, no obstante, ya loolu pourtant borom këram bii mooy sëyal actuellement di ko denc ko ñëpp xam la ko ñëpp xam la te moom it daanaka kooku ko xam moom sama yaay tey ko xamul bëriwul démb dama ko woo man sama téléphone yàqu li jëndiwu ko booy bi liggéey ci kër gi téléphone am yàqu mu yónnee xaalis ci sama tournée naa ko jëli ànd ak booy bi dem jëndal booy bi téléphone booy bi liggéey ci kër gi loolu ba amul problème ku nekk ak sa wër mais li ma dem démb lu ma naqari la mënatuma muñ dama sonn te sama yaay jàmbur ko woon léegi wax ko problème am faj ko defal jàmbur yi ñoo ko gënal foofu defal ma man nag damay laajtal ak man laa ko def dara bëggatuma ko lu dul rey sama bopp am ma xoolee bu ma ko sama doom bu am ku ko ko def lii ma laaj Njaay dégg nga ko bu baax kay. waaw ñuy jégalu nag xam nga jooy yi doon mm-hmm. jooy. Mm-hmm. moo tax yu bari kiiwul. mais daal jooy dafa xaw a parce que et puis relancé naa ko deux wala trois fois. Mm-hmm. yoo xamante ne chaque fois rek kii bi euh, ko njëkkee déglu. après question moo ko jur. parce que yu ci bëri wax na li mu wax ëpp na lii nii. mais yu ci bëri wax na ko mais bi ma ba dégluwaat bi mooy jéem naa contacter yaay ji ci numéro bi moo jox. mais dama gis ne gën na connecté wu. bàyyil naa ko message pour jéem a xool est-ce que effectivement lii xale bi wax nii noonu la demee. Mhm. wala am na leneen lu ciy ñuul. Mhm. bu ma ko jotee xam naa ne fii ak semaine prochaine incha allahu rabbi dinañ ci gën a. am Ndiaye am na ci jigéen ñoo xam ne ndeysaan dañuy am doom ak seen seen jëkkër ju njëkk ñaari doom ñetti doom beneen jëkkër ñëw tax ñu sacrifier seen doom yu njëkk yi. Mhm. sacrifier góor. ne toujours wax benn góor bu ma la jaral. sacrifier sacrifier say doom. yi xam ni doo ko góor ki juru ko. Mhm. ke ke la takk jur gis naa jigéen ñu dénkaane seen i doom ngir mën a nekk à ci seenub sëy. gis mhm. Mhm. kay gis naa ko. gis nga ko am na nag ñu koy def parce que dañuy yaakaar ne bu doomee nekkee ci kër ga. Euh, du doon lu gën ci ñoom. nga bàyyi leen seen kër yaay ci seen maam loolu d'accord naa ci. parce que xale moom fa mu mën a épanouir rek fa nga koy teg. yow rek nag li gën mooy nga yar ko. am ñoo xam ne moom pour maanaam dara bañ leen a ci seen sëy mhm. dañuy jël seen doom dénkaane ko c'est ça après nag mooy jur yi lii passe-partout waxit ci femme bi lu lu jar a bàyyi xel mhm. Mhm. est-ce que moo ko moo ko moo ko jur est-ce ki muy wax yaay ndax moo ko jur parce que yenn mbañeel yi euh, bu fa deret amee rek dana ma dana ma jaaxal léegi nag man li ma koy conseil mooy au lieu muy toog fii jëlu naqaram yanu ko di ko di di ko jooy guddeeg ba mhm. mhm. àdduna da ngay xam ne am yàlla yàllaay buur. Mhm. ñàkk ko yàllaay buur. man nag na gàddu li ñuy wax ci tubaab prendre son courage à deux fàtte euh, ñi mu jàpp ne ñoo ko war dimbali te jóg dimbali ci boppam. ci naka. mooy wut lu mu xam wut lu mu am. wut lu mu mën. am déet am na hmm. solo déggoo li awa di wax le hmm. président oublie oublie le président c'est ça gis nga tey ji soo ñëwee soo ñëwee soo ñëwee tey jii di ñii seet seen papa ay mag gis naa barki maire bu am cinquante trois trois ans na xëy na yow dimbali ko rek. boo leen di topp seen bu am cinquante trois amul émission bu tuddoon Salim Tooja am waaye bee tuddoon Salim Tooja waaw amut du du ab générique générique la woon. mooy woy heure rajo nationale. waaw ah. foofu la mën a jàll pour feeñ. parce que ku dudd cinq ku am cinquante trois ans naan da seet sa paap ma ma xooloo jéeg ma ma ne ko ma du ma ba est ba guerre <laughs> ci mën itam yow wax ci yàq rek. en tout cas daal. Mhm. li nga waxee sa sa papa sooy wër sa papa nekk fii di dëkk bi di jul di dund. nekk gone. wala ou mu nekk koo xam ni moom mi ngi ci ay activités am bëggu laa gis te nga nekk majeur. takkal sa ndigg dem ñafe ji. ginnaaw bugg laa gis yooyu bu ko bëgg a gis. man yooyu loolu laa gëm. sa yaay su lay naq làqatu te nekk nga nekk magum jëmm mënal sa bopp réer ko. fii nii soo mënee dara rek gaa ñoom ñoo lay wër si. fi xel a am dara mën dara. Hmm. fu may soo ne yaaj ji yasar mënoo dara kenn du la wëri ah. il faut nga am njariñ nit dangay ngay góorgóorlu ba am. moo bi sax. gi nga kii njaay. Mm-hmm. seen kër la nekk. Mm-hmm. kër papaam la nekk. Mm-hmm. waaye daal nee na dañ ko dëj ba mënul am jëkkër. papaam gaañu ñu ni ko mu ne nee na mu dem ci seetkat seetkat yi ni ko li la def mi ngi seen biir kër. papaam gaañu mu ànd ak yaay ñu ñu dëj ba pare mu ànd ak yaayam génn kër googu dem ci beneen kër. far yi commencé ñëw waaye quelque temps après. la ko daloon maanaam def chiffre d'affaires daal. waaw chiffre waaw. far yi yu ñëw waaye léegi quelque temps après. Uh-huh. affaire yi tëjuwaat. léegi nag mu dem ci xelam ni moom tey moo génn kër gi dem luwe ji ndax mu mën a am jëkkër. Uh-huh. seetkat yi man sama xel mu gàtt ma ne ko jigéen ñi ñoo war a moytu njaay seetkat yi dinañ leen dofloo de. Uh-huh. te soo seetloo quatre vingt pour cent seetkat yi ay jigéen lañu. te jigéen ñu ci baree bare dañoo sëy ba tas tasaat tasaat. xëy suba jekki-jekki ni ay jinne ma feeñu jox may petaaw fekk petaaw yi ñu ngi ko jënde marché Médina Médina bi tëdd naa damaa yeewu rek gis ko petaaw yi sama loxo jinne ji teg ko ci sama sama ngegenaay li jinne ji nàngam nangam yow jinne ji mënu laa jox jëkkër ay petaaw la lay jox te kër yëpp lañu sëy xoolal sëy yëpp seetkat yooyu ñoo sëy ba tas di tas sëy yi ñeneen ñi parce que ñoo naa la ko weex kii mm. ku ñuul kii ki am mandarga gii ki kii yee doon doxala wër xawma la nag lan yooyu la leer di la loo di la dofloo di la dofloo ba yow sa bopp nga mujj nga mel ni ku am ay faru rab. ah mais parallèlement à ça nag am na seetkat yu mën. am na boo demee Mbacke am na benn maire bu ñu feex maire Bintu Mbeng. Mhm. waaw la. waaw waaw xam nga ah. tey jii ba tey bu kenn laaj ne woo di ma laaj. Bintu Mbeng yaa tudd non non Ndiaye day leer ah. ay problème Ndiaye. man foo ma leen di dégg laa ci am man tamit. voilà wa doo ko seeti ba mu lu mu la wëree kon non non na leer de ban. dafa war leer na leer mais Bintu Mbengue Ndiaye nee na dégg la ci am. xamu ko amul numéro. waaw man bu ma ko ah. kenn laaj. parce que nit ñi da nga wax benn waxoon nga fi benn waaye bu nekkoon foofu fan nit ñi. dama sonal dama laaj ko xamu ko mooy Bintu Mbengue yàlla na fi yàgg loolu te wér. Ndiaye ko xam. <laughs> après naa joxe numéro bi. waa Mbacke <laughs> déglu ndaw si. te aw ma bu ma mën a seet si mun ma am copain ci réew mi ku ñëw day dem ku ñëw day dem ku ñëw mun nga bis may seetlu rek ñu ne dafa am loolu la def maanaam doj ni ma ko waxee sax mooy dafa am loolu la def loo xamante ne doo jóg sa kër bàyyi pour am jëkkër dem tukki sax bokk du ko doo ko mën yéeg yàlla dogal su papa ñu dem dëkk ci beneen kër wax dëgg yàlla nag ba mu jógee ci kër googu ci laa commencé am ay copain ci laa am ay copain nag waaye dañ cee teg quelque temps gisatuma kenn ku ñëw ñetti fan ñeent dem du sax mat weer léegi man li man sax li ma xamal ni lii dëgg la demut ci benn setkat benn ka setkat yi ma ko wax mat na nit ba ñeent ni ma liñ la defoon sa kër gi ngeen njëkkoon dëkk moom lañ la defaat ci kër gi ngeen dëkk ma bëggoon ku ma dimbali lii laa yow rasuul yi dindil ma lii nekk sama yaram wala lii nekk suñu biir kër ba tere maa am ci kër tere maa am borom kër mun na xalaatoon naa sax boog jëm maa dem duwee benn néeg dëkk fa quelque temps xool ba xam waaye mënuma dem ndax sama yaay maa koy wittali di ko jàppale vraiment sama yaay kese moo tax mënuma dem. luye beneen kër dëkk fa sama yaay rek moo tax mun maa dem luye nekk kese loolu rek moo ma jaaxal ku ma mën a dimbali ba lii nekk sama yaram dañ lii nekk suñu kër dañ ba ma mën a am borom kër ba sëy genre gii kay. day day ab oustaz nga koy jox rek. ñu jaamu dolli ci jaamu yoon man li ma bëgg li ma leen bëgg a laaj mooy moom ndax wax na li ko dal nii. kanam na ko. non non seetkat yi ko. moom non kon di na. Uh-huh. nee na moom xam na ki ko def. Uh-huh. mais loolu ñoratu ko. Uh-huh. nee na xam na ko mais loolu li ko ñor mooy mu dañ mais sama problème du doon. nu ko xamee seen dañ ko ko wax. ah laa jëm fa laa jëm baan xam nga ah. problème bi. Hmm. gis nga gis nga genre yii nii. mën na nekk ni sax seen bàyyi ñu leen dëj wala seen yaay. waaw am ñoo xam dañuy la pour nga bañ a génn ci kër. waaw yow baat amoon na ñun amoon nañu fi kaa boo xam te ne ndaw si papaam moo ko moo ba pare dee ba bañ a génn gi. waaw am na ñoo xam seen ñoo ñu takk la nii la dootoo am jëkkër. waaw ah, man mi mel ni ngay ñaan baat jigi góor hmm. muy bañ nga koy ñaan ba yàgg mu naa la may baat waaye dootoo dégg alxayri yooyu jigéen ñu bari ñu ngi dund loolu. mais man li may déranger mooy. Mhm. seetkat yi nga xam ne ñoo nekk di tas kër yi. gi nga tey ji soo am na ci ñoo xam ne soo liggéeyee nii soo demee nga liggéey. Mhm. del woote kër ga. wala nga jékki-jékki ni tëll dañuy ñëw yoor-yoor gi la ñuy jóg heure yi xam seen jëkkër yi liggéey nañu. Mhm. ñu ñëw ñëw seen biir kër yi laal basang li naan li waykat bi naan laalal basang ñu laal seeni i raaj. di tani naan la sa jëkkër de mu ngi xool ku ku xees kii sa jëkkër di xool ñoo yëngal kër yi nga ñëw rek sa jabar fasal la kanam ndekete seetkat baa fa moo moo moo ba nga liggéeyee moo liggéey si sa biir kër. ak dama dama lay wax benn défi. <laughs> waaw challenge. waaw góor ñam jabar dañu jël seen téléphone jabar. waaw dem contact bind seetkat ndax duñ ca gisee numéro. mais ay yu bëree bëri. dama dama seetkat s e <laughs> K. Ah, waaw jaru sax yegg ci seetkat yi. waaw SEK. waaw gis naa seetkat yu bëree génn. <laughs> waaw Ndiaye li saxaar. xam naa ko wax naa ko danañ ko changé. non ko collègue nii wala. collègue dama <laughs> cay dégg keroog am am benn femme ne ko ndax seen kër amul ku tudd ndey wala faatu. certainement loolu ban kër la amul loolu. kooku ne ko am na ku tudd ndey ne ko amul ndey amul faatu am na ku tudd ndey faatu. waaw rek mu naaw nee na nee na. gis na ko gis na ko. waaw. kër gooy dugg te amul ku tudd ndey wala ma ku fa tudd faatu. waaw dañu naan la fan yii fa ngay nekk amul coow. waaw Sénégal fa amul coow. <laughs> gisuma ko ak naan ndox la wër. inondation yi ñu naan la ndox la dëkk baa ngi inondé ba fees dell la ndox la wër suñ ko booleeg dex géej géej gi fuñ jëm non non man man man c'est que nit ñi xaw la te seen maayen la ñuy dox te seetlu da ngay gis koo xam ni daa sëy ba sonn fu mu sëy tas fa. jékki-jékki mënatul am jëkkër. Hmm. wala mu daan fo bi mu nekkee jeune muy fo di fo di fo di fo di fo di fo ba amul jëkkër. ndax foo mu tëdd di nelaw rek yeewu ni génne yeewu ay pétaaw ba jinne jéem a ko jox bii fekk petaaw yi ma ngi ko jëndee Medina wala marché Grand Yoff wala marché <laughs> Castor ci pétaaw yi ñuy jaay fii naan jinne yee ma ko ngëbal <laughs> kenn ngëbalu leen dara jeeg gi yeewu leen seetkat yi ñoom sëyuñu di neen seen sëy yi mhm. lu leer laa la wax yow seetkat yu jigéen yi yu jigéen yi tax may wax yu jigéen yi non non non jigéen ñi yow seetkat yu jigéen jigéen ñi ñooy dem seeti ay seetkat yu jigéen très rarement nga gis jigéen guy dem ay seetkat yu góor seetkat yu góor yi sax dañoo bariwul. <laughs> bariwuñu ay jigéen lañ ñu ci ëpp. am na ñu ci mën a mën am na ñu ci aay mais bariwuñu te xam leen sax yombul. Hmm. waaye am na ñuy seeti ay dix mille ki vingt mille nga naan ma hmm? ak naan dama lay seetal ci portable beeg yu kenn xamul. <laughs> mais nit ñi duñu yeewu njaay. <laughs> waa ji xam naa ne suba laa la ko jox. <laughs> waaw loolu de kii daal loué ci kër nekk am fa quinze ans. Mhm. mais fi ne nii jabar ja. bailleur ba. Mhm. moo bailleur bee dëkk. Mhm. mais léegi moom jabar ji ci boppam. bailleur ba lay toppatoo. muy yéen. moom daal fa muy tëdd ak jëkkëram du ko lal du ko bale togg añ daal dina ko def xale yi ni ko papa kaay añ waaye daal waa ji dem na ba jàpp bailleuram ak jabaram. Ah. mu bëgg génn kër gi ndax mënul génn kër gi ndax fa muy liggéeyee. cinquante pour cent lañ leen di fay ndax Covid bi dañ leen a arrêté ba pare leen di fay cinquante pour cent ndax ndax Covid bi. Mhm. amul ay moyens pour génn pour génn génn kër gi. Mhm. wuti feneen yóbbu njabootam nee na moom su génnul feeki fan wala mhm. feeki semaine borom kër gi na ko rey. mbaamu rey ko. léegi waa ji dafa dëkk ci kër gi ba pare suuluyee leen. waaw waaw noonu këram. waaw këram waa waa ji dafa am kër. luye waaj ak njabootam mm-hmm. def na fa quinze ans mm-hmm. waaye borom kër gi ci boppam day téq téqum biir jabar waaj borom kër ga ca kër ga la dëkk ca kër ga la dëkk da koy téq da waajee ma nettali de i moom a ko nettali su fekkee ñu ñu bàyyi euh, allo président te teg tegal ko gars yi ëpp naa def waa ji télé ba la ñëw topp ma sarax ma teg ma wareef ma toog ci tele bi wax ndax li may dund dafa garaaw mm-hmm. bis boo fi rayee nit mbaa ñu ray ma nit ñi dañuy wax naan nangamu jaru koog yu kenn xamul parce que métti nga. te ñoom am nañu doom. am nañu doom ndaw ndaw si waa ji nee na mu de day tëdd guddi. jabaram yor téléphone bi vingt heures la koy yor ba une heure du matin di wax ak waajal. borom kër gi borom waaw man mu dina xalaat xalaat bi de. loolu dafa yéeme mais li muy wax dafa yéeme. teg teg na ko de. ma yow yow yow. waajee ma nettali loolu ma ni la. ñëwoon télé ba la ñëw man ko léegi demal rajo ba dem mu ñëw fi nettali ma lépp. complément d'information ci suba gi la ma koy doog a jox. man ko mhm. yow leen yan preuve nga woon da ngaa dox ba fekk gis leen mun ma dinaa la woon jox jox preuve yi ma am yëpp ci ñoom. jox na la ko mun ma fase wu ma sama jabar parce que bu dama am ak moom njaboot. mais su ma génnul kër gi. waa ji dina ma rey. mbaa ma ray ko mbaa ma def na ko noonu sama jabar. mais même bu génnee kër gi sax du fii du tax a lijjanti parce que ah. femme bi day solu dàllam ñu bu dee li wax am na ah xam nga xamoo gars yi dañoo yaakaar ne xam dañuy fase hmm. ko na jàpp ci yàlla yombalal ko ko waaw ah, ni ko demal na waa ji ah. xam ne nag ma xam benn affaire gi nga immeuble quatre étages su borom kër gi dëkkee ci kaw immeuble quatre étage su su fekkee fa la dëkk. ak ak njabootam. na jabar ji vérifier des nga gis benn gel bu dëkk deuxième. grand bi ne la maa ngi dem jumaa ja ne ne jabar ji maa ngi doxantu jàkka ja ma nga deuxième. waaw ah, léegi nag ñi nga xam ne fa lay ñi nga xam ne immeuble yi ñu dëkk dafa am boutique ci suuf. waaw dañuy vérifier seen bon yeeg boutique yi. waaw loolu it ci la bokk. ah waaw waaw man xalaas bi réer na ma léegi de. xalaas bi léegi réer na ma de. allo présidence de la république rue présidence ci côté Robe Colobane ak Sandaga rue Sans Soro rue Victor Hugo rue présidence de la république yaa ngi ci palais de la république muy résidence du président de la république bi nga xam ne mooy demeure historique située dans le quartier Dakar Plateau capitale du Sénégal construit en 1902 oui son départ xam naa yàgg de ay <laughs> jaaxal dal daa mu nekk la résidence officielle du gouverneur général le représentant AF Léopold Sédar Senghor Diatta 1964 Abdou Diouf 82 Abdoulaye 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam ñamaat fi no xaaran ba xam kii woote bëgg jot président de la république ko kan la war a doon ak fan lay woote salaamaaleykum ndeysaan ndeysaan mën mën mën mi de ndeysaan wax dëgg yàlla ñi ci loolu ñi ci loolu yërëm naa leen. salaamaaleykum. ndeysaan xam nga nga ñu yor sa kër ba mu toog ba mu yàgg te kër ga jékki-jékki ndox mi ndox mi daal di koy nangu lii métti na waaye nag loolu yëpp bu ma jotee président man am naa ci idée. <laughs> man salaamaaleykum. salaamaaleykum. man eh, Papa Loum. allo salaamaaleykum. man Papa Loum. papalum te kat standis ñàkk jëm gi mu ñàkk jëm bala ngaa am kat bala nga koo jot kat am idée bu baax jot ko rek mu jafe Seydou ma ne ko. ma ne papalum. waaw standis waaw. ma maa ngi lay dégg waxal li nga war a wax tey gaaw ndax dama damaa yàkkamti. nga ni da nga doon. dama ni waxal li ngay wax gaaw ndax damaa yàkkamti. ah da ngaa jàppoon. dëgg la kay dëgg la kay. Euh, standis. waaw. standis ana président. président dafa jàpp. ah. dafa jàpp. dafa. dama jàpp dama jàpp. day ndékki. wax ak kuy noppam néew. ah day ndékki ah, waaw waaw waaw kan moo la wax président day ndékki dafa jàpp nga naan day ndékki. nga ñu defay. Eh, day dafa jàpp. ah ndékki na ba noppi waa kay. léegi moom laa soxla woon. mënoo koo jot. Ah? waxal li nga war a wax bu ñëwee ma jàllale ko. nga ni ma wax li ma war a. wax bu ñëwee ma wax ko ah, ma wax li ma war a wax. waa waa léegi. nee ko neel président mbënd mi. Aliou de président mbënd mi dégguma kat dégg ko. ma ne maa ngi lay dégg bu baax nga naan dégguma yow kay yaa déggu dégguma kii de bal kii yan lan laa wax kii kii li koy dabi xamu ko sax c'est ma ne maa ngi lay dégg de. nga ni yaa ngi may. dégg bu baax ah waaw waaw waaw neel président mbënd mi. waaw am naa ci xalaat. loo ci am xalaat. ndax mbënd mi bët ki dee mboo njaay bi mu demee ba nangu yenn kër yi. léegi kër yooyu nga xam ni moom la mbënd mi nangu léegi kër yooyu euh, ak ndox ma fa nekk léegi ndox moomu ma ndox mi mën naa bañ a yàqu ndox mi nañ ko jël ñu jël ñu jël ñu jël ay raakool ñu ñu ñu ñu roof ko ci ndox mi filtré ko bu ndox manqué tey Sénégal mën naa doon ndoxum naan ñu filtré ko mu doon ndoxum naan nga xam ni jarul dooti di di dem di dem ñiij wala di dem ci la de guerre ba ndoxum taw moom buñ ko dajalee xam nga ndoxum taw daa am barke barke bi mu am ak yooyu dégg nga maam boo ko jëlee dégg nga maam segg ko ba mu baax jël ko dégg nga maam defar ko ba mu baax mën naa doon ndoxum naan bu ko defee kenn ku ci nekk léegi sa robinet léegi ci ndoxum taw da nga koy balancé. bu ko defee bu ko defee euh, dootul ndox ci Sénégal idée la de. ma ne ah <laughs> ah mi ma ni sa xalaat baaxul nga naan idée ma <laughs> xam nga xam nga ndox moomu nu bàyyi mu taajo buñ bàyyee ba mu fer noonu ba yàqu loolu ndox mu yàqu na mais buñ ko jëlee ber ko fenn ma ma mën nañ ko segg def ko filtre filtre buñ ko filtré mën naa de ndoxam naan nga xam ni dootul manqué ndox ci Sénégal ba ilaa yow mi diini <laughs> la de. <laughs> ma ne Bapaloum. ah. du loolu ngay wax yow comme idée. nga di loolu nga. dama ni bu président nga ne bu président. président bu ñëwee dina dégg sa idée naxa saxandak yooyu. nga naan ah, ay jël ndox président kon moom moom moom SONES la nekkoon. nangam lan la newoon. ah lu mosuma xam président mos naa liggéey SONES ah kii kay. Eh, lii tax mu xam ndox kay. ma ne Papa Loum. lii tax mu xam ndox ah man di mosuma xam ni.